tey tey si Balla Gaye toujours la ñuy des mu am benn combat boo xam ne bu bu bu bu doy waar kooku ki ñu war bëreel moo ko daanoon teyal ban gis-gis nga si am Balla Gaye mu ngi si forme wala newu si forme. waaw maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla mi nga xam ni moom moom àdduna bi moom mu ko doxal làmb jooju ñu jëm yàlla man bi ngeen may arrêté léegi pour waxtaan ak man dama doon jaale ji kon man ñëw ma suba. mais bu ñu ci yàlla yóbboo may Bombardier wér ndax mbër mu yaru la mbër mu baax la mbër mu discipliné la mbër mu ay kàddoom rafet la muy Bombardier mais daf ma daanoon xañ ma suma roi des arènes mais buñ ci eggee danaa ko jàngal bëri dana regretté sax lan la doon jëlee Balla Gaye dinañu xam ni jamono boobu leneen a xewoon mosul combat mos ta jub may waxee nii mais Bombardier bu yuboo mu def ndànk bañ a sonal yaramam yàlla na yàlla farag ñun gis ba mais bu bis baa bu yàlla farag ñun ji dana xam ni mbër mi fii ci biir géej la yeewoo ba nga laaj ma leneen. ba Balla ñu gisoon mu mu nekkoon si état boo xam ne démb dafa mel ni daal yaramam dafa tàng dafa mel ni dañ ko dañ ko xabtal mu yàkkam di combat bi lool pour yow lan moo ko waral. xam nga démb def na sax loo xam ni ñu bare dinañu ni Balla Gaye lan lay def nii Balla Gaye siti tumbër la yor. ma déggal la nag démb dafa tuus jàkkaarloog Bombardier xam li ko Bombardier xañoon loolu moo ko énervé démb mu dox ci samay ndigal ba bu muy dugg ci digg géew bi ma téye ci loxoom di ko yóbbu ca lag deyeer ñun ci suuf si leen ñu bindee kon bu ñu xëppee suuf wàcc nañu ndax doomu aadama suuf la en réalité démb li mu def dama ko rafetlu ndax bi mu xëppee boppam suuf la ñu xam ne gaynde day gësu gaynde dëgg-dëgg day gësu moo tax jéem lu gëstu ci suuf si kon à vrai dire gàcce ngaalaama sama doom ji maa ngi gërëm mbër yi nga xam ni ku ñu ci laaj nga ni Balla Gaye dàq bëri ci mbër yi bu mu ñàkk keñaan am mbooloo bu mu amee il faut am ko jiitu Balla Gaye jiitu ci mbër yi yàlla yàlla may mbër yëpp wér may leen jàmm promoteur yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm te gërëm suma frère Gaston Mbengue ndax li muy bokk bokk ak man moom du ma gis mësuma ko ñaan dërëm waaye boo ko woyee ci cent franc mu wuyu la ndax suñu maam yi ñu ngi daje ci tabaski Fambaud man sëtu Yoro Jaw laa gisee toujours bu may wax ni sëtu Yoro Jaw laa am na ku bëgg a wax soxla mënu ko wax am na ku muuma am na ku dër kon bu ma yàlla mayee ma façade yox sama soxla dama ciy gërëm yàlla mais man doomu buur laa ca waalo mais Gaston ñu ngi koy gërëm làmb mooy régulariser réew réew mi démb kenn talul dara dañu bëgg jàmm làmb ji nañ ko bàyyi mu dem promoteur yi à dimanche feebar bii lu fi yàlla indi la dama bëggoon ministre bi nga xam ne moo yor mbirum feebar bi su xëyee di lim ñi gaañu ni lim ñi juddu yàlla dafa ñu fi indi wàcce fi feebar kon feebar du jóge ci àdduna bi nit ñi sonn nañu réew mi dafa nekk en crise feebar bii ma nga jóge ca tubaab ya ñun waxuñu du ñu rey waxuñu ñu amu fi. mais la muy dal tubaab yi du leen ko dal réew mu ñëw doole mi kenn du ko téye ci feebar bi nañu takk ay masque raxas suñuy loxo ñu ubbi làmb ji kenn ku ne la nga doon for nga for ko loolu maa ngi ciy gërëm président de la république di gërëm ministère des sport ku ñeme la ñu mu defal làmb démb ubbi ko ba làmb ji fees dell dégg ko kenn ko fi feebar kon yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi ba nga laaj ma leneen. waa si si si Balla Gaye toujours la ñuy des dama bëggoon nga leeral benn affaire dañ la gëjoon gis si si làmbam ñu laan jaww dafa ama problème Balla Gaye loolu laa bëggoon nga leer. non euh, man décidément su may aas suma at soixante-treize du benn fan ba tey maa ngi ci làmb man ñu ma mel làmb la suñ ma xamee làmb la kon man mënuma bàyyi làmb mën naa retiré du nag ci làmb su ñu amee combat ma dem fa ñuy entraîné xelal leen bis ba jot ma di yéeg ci kaw mais di fekk amuñu amatuñu mag. li mën a taxal xelal mbër yi il faut loolu nga xam ne mooy grade boo xam ne tey yàlla doxal na géejoo yëpp dañ ma koy xoolee ku ne xam na ne dara gënul métti nga dem ci stade dag ba si biir ñaar fukki ba pare wàcc ànd mbër yi di sonn te kër Lac de maa ngi lay xamal ni la jour bi muy bëree laa ko xam. Balla bi mu daanee Modou ak léegi juróomi fan yi la ma mujj gis ndax Serigne Babacar Sy da doon wax ni ànd leen ànd xol bis bi ne may lambar lambari dem kër Balla Gaye doxewuma noonu ndax yàlla teral na ma. te lépp lu ma def ci làmb sama ko ju baax ji moom ma ko defloo muy Aziz Ndiaye Ahmed Aydara Baye Ndiaye El Hadj Malick Gakou doomu Géejawaay yooyu ba ci Pam Mama Fall may gërëm nag ikki waalo bu baax ndax démb la dëggeer daf ma déglu Abdou Diouf déglu ma Lirou Diane déglu ma mbër déglu ma même Serigne si déglu ma jox ma sama cër cër boobu la am te delloo nañ ma ko démb la dëggeer li muy jóge jóge ci combat tey sept heures ci suba la ma woo te maa ko wax ni ko bu mu wax ci benn suite loolu dafa jot suñu ndigal. site yëpp ngi dem wuti këram mais bu seetaanee lii may wax bu mu wax ak benn site te laajuñu mais ñu ngi koy gërëm ci taxawaayam ñu ngi koy gërëm ci bëre bi waaye gii waay kontaan nañ ci moom mboolam koy supporter am kontaan na mais amateur yi li ñu bëggoon gis démb muy bëre te bëre ñaara koy def yàlla dogal na ëmm seen dafa daan bëre mais démb ñëwul bëre ñu ngi ñaan yàlla su amatee combat yàlla na bëre loolu mooy li ma lay wax ba nga laaj ma leneen. tey lan lan ngay tàggatoo ban message ngay jox li may tàggatoo mooy. gërëm waa waalo ndax jàpp nañ ci combat bi il faut Balla Gaye xam ni waa waalo ñoo koy ñaanal Casamance nag fa la dëkk il faut Lac de Guiers xam ni waa waalo dañ koy ñaanal muy soogam dem Casamance xam nga slogan waalo bañ na man maa ko moom maa ngi ko bind ci sumay oto ba léegi bépp waalo waalo bu am oto da ngay bind waalo bañ na waalo bañ a tax ndar mucc fuuta mucc ba tey réew mi mën a moom boppam waaloo xeexoon ak naar yi ba naar yi egsi wuñu ndar ñëwuñu Louga nangu suñu yeneen i réew kon gàcce ngaalaama sama maam yi xeexoon Talaatay Ndeer ma leen di leen sant di leen gërëm di gërëm waa Géejawaay di gërëm waa Pikine di wax ne lépp lu ma wax mu ñaaw mën ma ko jéggal mais daal Lac de Guiers sant nañ ko gërëm Mohamed Ali gërëm Lirou Diane gërëm staff bi gërëm Mbaye Sy Mbaye Sy bi doon tëggal Lac de ñu ngi koy gërëm bu baax di gërëm Eumeu Sène di gërëm estafam di ñaanal waa Pikine jàmm di ñaanal waa Guédiawaye jàmm di wax réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm sant naa leen bu baax gërëm naa leen jërëjëf.